وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير العالمين والصلاة والسلام wa ala sayidina muhammad xayril alamin bismillahi rahmaani rahim jërëjëf Serigne Touba est-ce que Serigne Touba tey Serigne borom Touba moroomantewul bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi nuyu ñëpp bokki senegal gépp di baalu ñëpp ak ngir jëmmi Cheikhul Khadim di baal ñëpp ak waaye dina am ñu mu des loolu moom duñ ko mën di wax waaye dinay am loolu nag guléet ndaxte ginnaaw bu nu jégaloo yàlla di ko ñaan mu jégal nun ñépp di ko ñaan mu jégal nun ñépp suñu digganteeg moom noo ngi koy sant ci boole gi mu boole ak Serigne Touba di ñaanal Cheikh mu Mountakha suñu borom taw feexel ko ba li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba ci tool bu lislaam bi mu liggéey ko nu ànd ko moom te daje see ngërëmu Serigne bi mbokk yi nag tey lii du aada ci yéen ndax talaata jotul ba ñuy def jataay bu Mouride Saarix ni démb ci huit heures et demie du ajjuma ci neuf heures ban war a toog ak yéen di waxtaan ci dundu Cheikhul Khadim ak nekkam njariñ day loo xam ni urgence la lu jàmp la fi ñu toll sax danoo ñaan suñu borom rek mu dimbali nu waaye xamuñu sax état bi nu toll ci aw naqaru xol aku tiis bu wér ci lii nuy bëgg a waxtaan ak yéen li ñu jëkk a wax sax mooy daw nu ko def waaye képp koo xam ni yor nga sit wala nga bëgg koo yaatal na ko jullit yépp dégg na ko taalibe yépp dégg mu yaatu ba ñépp xam ko naqarlu ko te taxaw ci mooy lan mooy ñun ñépp ay nit lañu doomu aadama kenn ku ne am nga diine waaye ñun ñépp nag ñun yàlla dimbali nañu ay jullit lañu bi mu nu ci biir njullit gi defal nañu lu gën ci nun lu gën ñépp lu nu gën a lépp muy boole na ko Sëriñ Tuubaa am na jëmm joo xam ni yëkkati nay kàddu am na sax site yoo xam ni danañ teg kàddu yu mu yëkkati ña cay wax soo cee wax waaye man communicationnellement ak état bi ma toll ak Seydina Muhammad fi mu toll loolu duma ko teg ci Saxum Touba te maa ngi woo sax bala maa tàmbali ci li xew ñi yor site internet yi wala télévision yi média yi rek d'une manière général rajo wala lu mën a doon su amatee yenn wax yoo xam ni egg na ci benn extrémité bi ci bon gum bon ak yées gum yées rikk waaye nañ xam luy communication ndax sit internet bi invité woon ki tax wax jii ñu koy wax bu fekkoon ni xool nañ bu baax ginnaaw bi mu waxee ba noppi ñu enregistré ko segg ko wax jooju waruñu ko war a génne sax duñ ne dañ koo invité rek il est libre wala liberté d'expression déedéet yow da ngay jël sa responsabilité en tant que média wax jooju nga dindi ko ba kon kenn du ko dégg te noo ngi ñaan sax képp koo xam ni jaar na ci sab site wala jàllale woon nga ko feneen nga supprimer ko lu plus rapidement possible noo ngi koy ñaan nag képp ku dib jullit rawatina képp ku dib taalibe te yor lu mel noonu muy wax ji nga xam ni kii ñuy wax Moustapha Diakhaté wàccu alternance di yëngu ci politique te Macky Sall dàq ko fi mbir gi dem rek ci fi mu nekkoon wax ju wax ju day waar joo xam ni jëkkewul tey nag jëkkewul tey ndax gis ngeen ni am na wote yu fi amoon élection locale mu wax ci booba Cheikh Sidi Mokhtar moo fi nekk di am lu muy diingat ci diggante parité waree daal kon Touba jigéen ñi góor ñi te war nañoo am parité loolu bàyyi woon nañ ko bu jàll waaye tey jii nag. man ba mu ma masee am aw naqar ba léegi duubul naqar laa am ndax jëmmi Cheikhul Khadim moo tax xam Serigne Touba fi mu teg yonent bi xam ni mu fonkee yonent bi xam li mu ko jaral mbir mi li ci nekk ci wax dafa doy waar waxam joojee mu waxoon moom Moustapha Diakhaté wàccoog alternance nekkoon PDS tel Macky Sall dàq ko bu yàggul moom moom plateau yépp mu di ci génn loolu suñu yoon nekku ci mais dafoo dem ba egg foo xam ni trop c'est trop loolu damay dem ba ci yàgg sax ma ni moom mbiram war naa leer wala mu leer ko ndax am na act yoo xam boo ko def nit ñi dañu xalaat ni yow ñii ak fa nga ni fa nga juddoo fa nga bokk muy Touba Mbacké nga juddoo fa ñu ne la fa le nga mën a jël yenn acte yi waxuma ci yoonu murit man nga dépassé ko dem ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne mooy sunu lépp di sëriñu sëriñ Touba di sëriñu ku yaakaar yàlla te nekk ci lislaam tey sëriñu ku ko nangu ak ku ko bañ boo ko nangoo boo ko bañee mu yàlla jiital ko nga mën a yëkkati yenn kàddu yi di ko wax boo boobaa lii ñu tuddee ay lobby ndax am na acte yoo xam ne boo ko dee posé di ko posé waat nit ñi dañ dem ba si nit ñi defuñu danañ wax sax ni kii ndax day làqatu ndax yenn yi nit ñu ko nit di mën a génne ci gémmiñam man wax ji nee naa leen du ba leen ko wax dégg ko mooy moom dafa wax ay wax jëmale ko ci yonent bi ana diggante mbirum Sonko ak ndaw soosu bu ñu lay invité ba ngay misaal looy wax bay tudd yonent bi ba di ci indi loolu xanaa li ci waroon indi mooy ay tegtal ci lislaam waaye dem bay tudd ci way jur yonent bi sallallahu dem bay tëkkale say way jur ak way jur yonent bi door daal ngeen jéggal ma mënuma cee sori mais jot ngeen ko dégg am na ñu ci réagir noo ci ciy réagir moom Moustapha Diakhaté bu demee ba naan man sama ndey ak sama baay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay way juróom nangam nangam Euh, am na loo xam daal man mënuma ko man mënuma ko moom xam nañ nit ñi xam nañ dégg nañ ko ndax day dem ba di wax ci way jur bi di dëkkalee way juróom moom ak it sax nañ way juram moo gën nangam man du ma ko tudd waaw ndax ñoom faatuwuñ ci lislaam koy laaj sayduna abdullah ak umul soxna aminatu ñoom ndax bi ñuy faatu lekk fekk da islaam taxaw ndax bi ñuy faatu génn àdduna way jur yonent bu jigéen ak góor ndax fekk na lislaam taxaw ndax fekk na yonent bi woote dana la laaj loolu waaye loolu sax man du ma ci sori ndax yooyu am na loo xam ni day indi ay débat ak i man li may jëkk a indi mooy bayit yi laa jëkk a wax sëñ Abdul Ahad Mbacké rek am na lu mu waxoon am na ko fi defaru ak njaaxum jóge fii dem ci dëkkub diine tooñ ay nit dëkk Touba bokk Touba sant Mbacké Sëñ Blaat ba mu jógee def ni day fii lañ ko jure de waaye bokku fi fii lañ ko jure loolu nag ngeen ci jàngee yéen yéen jullit ñi itam yëpp maa ngi attirer attention ñëpp que Moustapha Diakhaté mii wàccoog alternance ko gis ci plateau politique yi su juddoo Touba fi itam wala mu nekk fi itam na ngeen xam ni reflété wul Touba loolu na nañ ci jàng tey ni nañ bàyyi luñ ni Touba la rek. noo mën a sant ak koo mën a doon boo fi bokkee ak loo jege jege jege ak yoo xamante ni bii kooku yow la concerné mais concerné wul Touba concerné wul Serigne Touba concerné wul Islam lii murid yi nañ ko ci jànge tey ci Moustapha Diakhaté ndax koo xam ne tey li ñu doon séntu ci yow yow ana lan nga jëriñ Sénégal ban service nga rendre Sénégal ban service nga rendre yoonu l'islam nga xam ne li ñu doon séntu ci yow lu mu bon bon l'islam di nga ci xam lu baree bare bari ku la laaj masala nga mën ko tontu jàkkaroon naa loolu. boo xamoon Serigne Touba téere yi may bëgg a jàng su fekkoon ni xam nga ko ba mën koo firi wala boog boo ko xamante mënoo bëgg koo firi nga xam ne kon dëppoo sore nga ak Serigne yooyu ngay wax ni nekkuñu woon jullit moo tax yow nga nga jàppe leen na nga leen jàppe déglul Cheikhul Khadim li mu wax fii yow yow way juróom góor nga wax sax ak wu jigéen waaye déglul Serigne Touba moom romb na foofu bismillahi rahmaani rahim wal baladu tayibu yaxruju nabatahu allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi anni abadan bi qadri azamati datika ya ahadu wajal qalbi baladan tayiban wa axrij nabatahu bi idnika wanshur alaya barakati hadihi alxurufi allati ibtadatu biha xidmatahu sallallahu alayhi wa sallam nee na liggéeyam bi mu doon liggéeyal yonent bi mi ngi ko tàmbalee ci bayit yii araf yii la ko tàmbalee jëmale ko ci maami yonent bi ba noppi ni wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu moo tax sëñ bi ab sën bul ko seen ba yaakaar ni la nekk ci biir sën bi lu baax la nee na fa lu baax lu baax rek lay mën a jur waaw lu lu baax wal ba baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu li ma bëgg a wax mooy sëriñ bi xasida gi da ko def jëmale ko ci maami yonent bi ki Moustapha Jaxate di wax ay maamam ay waajuram waxul sax ay maam moom waajuram la wax wu góor ak bu jigéen moom Moustapha Diakhaté loolu la wax jëme ci yonent bi sëriñ bi nee na wajjahtu kulli lil wadudi samadi daa xidmatin lil Moustapha Muhammadi alhamdu wa shukru maan lillaahi ala nabi waladi abdillahi doomi abdillahi jiite lay wax abdillahi miit la Moustapha Diakhaté di wax lillaahi bi dikri alxakimi an qalib maan nabi waladi abdil muttalib maami yonent bii de la Moustapha Diakhaté di wax baddada lii chamla aduwin haachimi rabbi bi jaahil mustapha bni haachimi lii jaada rabbi bi nawaalin qad anaaf bil muntaxa al muxtaari min abdi manaaf duaay yastajaaba bil maxfiyi rabbiya bil muxtaari min qusayi asaluhu nayla al muna bil istilaab wala gururin bin nabi yibni kilaab lii jud bi xayrin wakfini madara rabbi bi jaahil muttabaa bni murra tayib fuaadiya bi rawdi soxbi lii abadan bil muntaqab ni kaabi yallaahu yaa dal arshi wal kursi yi salli bi taslimin ala lu ay yi yaa rabbi suqli jumlatal mataalibi bilaa xisaabin bin nabi bni xaalibi badiicu saxir lee kulla shahri wa kulla yowmin bin nabi bni fihri yaa xayra naasirin wa xayra maaliki unsur wa malik niya bibni maaliki xabiati wa izzati wa nadri kawnuka lii faliyakun bin nadri rulli rullil ida waliyahab junaana waliyahab jinaana bil mus bil muntaxal muxtaari min kinaana judlii bi maa biniru judlii bi maa bihi uniru xayma wa gayraha bi man adaa xuzayma najji janaabi min jiwaari mushrika wa mushrikin bil mustafa bni mudrika barik li allahuma fi qiyaasi bi man jacaltahu diyaa ilyaasi unsur janaabi inda sayrin wa xadar walaka qarribni bi jaahi ibni mudar tafaddalan alayya rabbi an uzaar fiika wa fi xayri lwara nuuri nizar hadaytani yaa xayra haadin qad waat anjazta lil waada bi afdali maat wa habta li fadlan ila aljinaani yarfacu kulli binnabi al adnaani Sëriñ Tuubaa lii la wax ba topp maam yonent yi ba mu jeex waxuma Abdullahi mi way juróomu góor ak Aminatu mi way juróomu jigéen waaye ka mujj cay maamam Sëriñ Tuubaa tagg na leen di ñaan yàlla yàlla ca barkeb ñooña ca màggaayub ñooña yàlla suñu borom defal ko li mu bëgg wahabtali fadlan ilal jinaani yarfau kulli bi nabil adnaani dina yëkkati sama lépp ci barkeb adnaan te moo ca mujj lu ne ñaane na ko ci maam yonent bi yow nga ñëw taxaw naan say baay ak say yaay di bi barakat al siddiq wal faaruqi jaamiat al majmuuci ma mafruqi foofu laay yem ci xasida gi beneen bi ci des nga ñëw ci geneen xasida goo xam ni xaw ma xam nga ko mu dir sax wala da ko jàng Sëriñ ñëwaat ci muqaddamatul xidma ak xasida goo xam ni mbooleem nu yonent bi dudd rek mbooleem nu yonent bi dudd nu ko yàlla tudd rek Sëriñ Tuubaa tudd na ko ci xasida muqaddamatul xidma mbooleem nu yonent di ko ci tagg di julli ci moom ma indiwaat ko ngir wan la maami Serigne Touba maami yonent bi fi leen Serigne Touba teg wax gu ma yonent bi allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammad ibni abdillahi salaatan taqini biha mudahanata kulli mujrimin laahi wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi bila tanah allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammad ibni abdul muttalib salaatan tajlubu biha ilaya kullama antaxib wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi adada ma kutib allahuma salli ala sayyidina wa mawlana wasilatina ilayka muhammadin najli hashim wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi al akarim waj'alni bi jaahihi indaka wa indahu mithlahum fima yanbaghi min al makarim allahuma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin allahuma salli ala sayyidina wa mawlana wa qurrati ayunina muhammad ibni najli abdi manaf salatan tuxrijuni biha min al xilaaf وسلم عليه وعلى وعلى آله وصحبه ذوي الإخلاص والإنصاف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نجل قصي صلاة تغفر بها ذنوبي كلها وتغفر لي بها ولوالدي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي الدهر بجاهه بما تحب وترضى المرضي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليل كلاب وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأنجاب واجعلني بجاهه ملازمة ملازم الثواب ملازم الثواب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليل مرة وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي المبرة وهب لي بجاهه أن لا أحاسب مثله مثقال ذرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليل كعب وسلم عليه وعلى آله وصحبه ورد لي بجاهه كل صعب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليل لؤي وسلم على وسلم عليه وعلى آله وصحبه adada kulli cheyin waqini bi jaahi baada al yowmi ila wafaati al bidaata wa safa wal xayi allahuma salli ala sayidina mawlana muhammadin salili xaalib wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi dawi lmanaqib wa tataqabal wa taqabal bi jaahi minni jamia almakasib allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin salili fihr wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi dawi lajr waqini bi jaahi sakrat almawti wa adab alqabri allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin salili malik وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي المناسك واجعلني بجاهه فرحة كل مسلم ناسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليل نضر وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي القدر وقني بجاهه في بقية عمري جملة ما يؤدي للوزر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليل كنانة وسلم عليه وعلى, وعلى آله وصحبه ذوي الأمانة والتقني بجاهه نقد العهد والقيانة allahuma salli ala sayidina wa mawlana sali muhammadin salili xusayma wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi dawi sakina waj'alni bi jaahi indaka wa indahu ka ahli almadina allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin salili mudraka wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man bil aymani adraka warzuqni bi jaahi an ujaarahu an ujaarahu an ujaawirahu fi daarini wa udrika allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin salili ilyas salatan taqini biha waswata waswasata alxannaas wa an yakuna lahu minni abadan iyaas وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأكياس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليل المضر وسلم عليه وعلى, وعلى آله وصحبه ذوي السعادة والظفر واجعلني بجاهه كمن جميع غزواته شهد وحضر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليل النزار وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي المحامد والفخار واكفني يا كافي واكفني يا كافي كل ما فيه مكر أو اخترار اللهم صل على سيدنا ومولانا سليم عبد صلاة تفوق بها صلاة تفوق كل حد وعدد وسلم عليه وعلى صحبه ذوي المدد واجعلني بجاهه بجاهه بشرى كل ذي رشد اللهم صل على سيدنا ومولانا سليل عدنان صلاة تجد لي بها بالغفران والرضوان وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي الإيقان آمين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان innaka allahuma innaka amartani fi kitaabika ba an usalli wa usallima ala habibika sayidina muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallama fa ajabtuka ila ma amartani bihi wa jaaltu hada alkitaba muqaddamatan fa taqabalha minni bi fadlika wa juudika wa karamika wa taqabal jamia ma yati baadaha wajcal kulla xarfin minha muwaafiqan lima tuhib wa tara bi jaahil musalla alayhi biha mbokk yi lii bu ko Sëriñ Tuubaa toogee di ko wax ak la ko jiitu ci maami yonent bi ba egg ca maama mu mujj ca fañ ca yem mu di leen màggal di ñaan ci seen barke ak seen daraja yow nga mën a taxaw ni yow ñii say wajur gënu gënuñu say wajur wax jooj ji nga jëme ci ñoom maa ngi waat ni boo tuubul lii wallahi lazim boo ko tuubul na la leer ni kenn mun laa torox boo ko tuubul te billaahi doo dajeeg Sëriñ Tuubaa yawmal qiyaam maa ko wax fii naqar wu ne nit ñi am nañ ko ba mu des wii lu ne dégg nañ ko lu ne dégg nañ ko waxal say wax waaye lu toll ni yonent bi Sëriñ Tuubaa daj lii mu daj ci moom dem ba egg ci ne bu yonent bi ak dégg bu ko naree jam ma teg sama lex bi man Sëriñ Tuubaa ci suuf yonent bi teg ci tànk bi te dégg bañ koo jam maamam yii ba tudd ko nga xam ne man indiwuma ko Sëriñ Tuubaa ko indi nii mii nii yéen ko gis yéen ñëpp dem bay Adnaan Kilaab Xusay lu ay ñëpp jël la naa Abdullah ak Amina mii way juróom maam yi maamaatam di leen tagg di ñaan ci seen barke nga mën a taxaw wax lii nga wax ci ñoom yaa ko doon wax naan kenn ci wajur yonent ma nga sawara ci ñoom ñu tuddee ay ustaas te kenn xamul lu ñu doon bokk yi man maa ngi tuub di jéglu di wax astaghfirullah maa ngi tuubal maa ngi tuubal képp koo xam ne sukk nga jéblu képp kuy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah maa ngi tuubal man maa ngi tàmbali tuub man ci dégg gi rek man maa ngi tuub di yéene waaye ci tuub gi képp ko wax laa ilaha illa muhammadu rasulullah ndax jëmm jii mu wax Moustapha Jaxate wàcce asrenas li ma ciy dolli mooy sëriñ bi juddoo Tuubaa wala nga dëkk fi wala nga bokk foo mën a bokk ak fu baax fu mën a doon bu leen fàtte ni yonent bi am yàlla am na lu mu waxoon yonent yàlla noox ba yonent yàlla noox di dem ànd ak ña mu àndal yàlla ni ko defaral gaal gi ngeen dugg ci moom ma sauvé leen doom ji ni ko man duma ci dugg mu ne ko ku ci dugg di nga lab tey mu ne ko dugg ci dugg ba yàlla di wax di ñaan yàlla ba yonent yàlla noox di ñaan yàlla ngir doomu mucc dana ko innahu amalun gayru saalihin sa doom ji liggéey bu baaxul la liggéey bu bon la sa doom ji jaar ci yow liggéey bu bon la xalaat leen ci loolu yow li nga def tey daf nuy rappeler les versets sataniques de Salman Rushdie je peux même dire les versets sataniques de Moustapha Diakhaté wàccoog alternance tàngal nga xol yëpp tàngal nga xol yëpp te Serigne Touba fa mu nekk tey jëppi na la dëgg dëgg jëppi tuub rekk la war ak nu mu gën a gaawe te def ko ñëpp dégg ko faw ran tayle nga sa bopp nag zaahir ak baatin tayle nga sa bopp zaahir wa baatin nag nee naa la lii boo ko tuggul doo jàkkaarloo Cheikhul Xadim yawmal qiyaam wallaahi lazim maa ko wax. am na loo xam ne koy def sax da ngay humilier say say waajur sa ñaari am na jëf yoo xam ne ak wax yu yaa ngi humilier sa ñaari sa ku koy def rek yaa ngi humilier te ñu ñu baax di ñu sell waaye li ma wax ci yonent yàlla noox léegi rek. bokk yi yéen yoor internet bi képp koo xam ne lii Moustapha Diakhaté wax yaa ngi ko yor sëb site bi léegi éliminer ko te kenn ku ci invité ti nit bu demee ba gën sujet ba muy wax amul responsabilité xam luy communication nga supprimer ko définitivement bañ ko génne mbokk yi awma tey laa ma sa toog xaw ma lu may wax xaw ma lu may wax waaw suñu xol yépp tàng na tàngal nga xolub Sëriñ Tuubaa tàngal ko xolub ku dul yont tàngal ko xolub ku dul jullit waxaalewu ma nag ku sukk jéblu mu waxaalewu ma ko li ma leen di wax mooy dee leen xool dañ naan nit du wàll dëkk wala fa looy raw wala fi ñu judd ay bàyyam déedéet amul importance dëkk Tuubaa ak ñàkk fi wala cosaanoo fi fas yéene góorgóorlu ci sëriñ bi bëgg ak doroy la mu doon def moo moo ko ëpp solo nekkal Kulikoro nekkal New Delhi nekkal Boston te ñu fi mu toll nii ci taalibe yi ni ñuy dund ci yoonu murit il suffit simplement ñu ni diw fa la dëkk wala maam fa la fa la yor wala nangam rek ñu jeex bu yàgg d'accord seen bëgg seen moo fort waaye bis ni ki tey lii may ne li ngeen door ñëpp waaye li ci gën metti mooy Cheikhul Khadim mi nga xam ni fi mu teg yonent bi ba maamam yii mi ngi nii wax naa li ko tagg gi mu leen tagg ak ñaan yi mu ñaan di tawasul ci ñoom nga mën a taxaw yow wax li wax ñu teg ko ci internet bi mi ngi tasaaru ci adduna bi fi mu nii euh, wallaahi alazim dugg nga ci loo xam ne te dégg nga Sëriñ Tuubaa li muy ñaan ci su sukuraat xam nga sukuraat nu mu méttee wallaahi boo ko tuubul lii maa la ko wax nun ñépp nañ xool te am na loo xam ne sax nag nit ñi ak taalibe yépp kilifa diine yépp am na loo xam ne yonent bi la kenn wërta laal léeg-léeg ma dégg kuraan suñu waxee sëriñ sëñ diw sàngam suñu waxee seen sëriñ ñu jóg mais da di topp nit ñi seen waxtaan man amul waxtaan bu ma mës a waxtaan wudul woo xam ni keroog ba fi waa ji waxee la mu wax muy professeur Sankaré kan sëriñ ñu jóg te bu waxee yonent kenn du jóg wala bu ñu waxee lislaam kenn du jóg non loolu ngeen di bàyyi da ngeen di suivre nit ñi ba xam par constance ngeen xam ñoom seen histoire ak fi jaar ak li ñu wax lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man bande bi ma jëkk def cassette booba Talla Diagne mooy def pré-enregistré mooy première cassette islam ci Sénégal muy le voyage nocturne du prophète ba mu ñëwee ni ma damaa bëgg nga def bande nit ñi dañ koo soxla ku ne sëñ Tuubaa ngay dama ne ko bande bi ma dama koy def ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam le voyage nocturne du ñu bari am nañ ko muy rañaanu yonent bi moo tax léeg-léeg nga dégg ñoo xam dañuy toog seen site wala ñu toog feneen bu ñu waxee seen sëriñ ñu jóg te ñu waxee yonent déedéet da leen def déception wala ngeen di ngeen di ngeen di informé wu ba mu daj ba noppi li ma bëgg wax rek sax loolu amu fi place li ma bëgg a wax rek mooy tey daal ñun ñëpp ñun ñëpp man ak yéen ñëpp noonu noo am na xaru xol Moustapha Diakhaté wàcce alternance bii di politique ñu ko invité ci plateau yu ne te it lan maa ko koo xam ne bis ni invité nga ko ci télé moo xam ci lu mu mën a doon ne la wér ni noonub lislaam nga noonub Serigne Touba nga noonub jullit koo woot ci télévision télévision booba maa ngi leen di xamal yéen ñëpp jàppale ni noonub lislaam la noonub Serigne Touba la noonub taalibi la képp ku ko woote ak noo ko mën a wooye ak loo ko mën a wooye foofu laa yomale wax ci wasalaamu ala man ittaba'a huda nan nan dem na nga xool yow jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما